الأسبوعي يقدمه العالم العلامة Fatwa di émission bu leen radio télévision Walfadjri di defal ay bés bu jot ci waxtu wi ak oustaz Hady Niass alhamdulillahi alladi an'ama ala albashariyati walbashar bi bi'thati sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallama ila xayri ummatin uxrijat linnaas wa bi xayri kitaabin yahdi lillati hiya aqwamu summa salaatu bi akmaliha maa salaami bi atamihi ala ashrafi xalqihi wa akrami rusulihi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 borom xam di ilimaan di jàngalekat di conférencier euh, di imaam Abdoulaye fay ñu bàyyi la Oustaz Hassan nga dalal ko ñu door a dugg ci mawduu bi. jërëjëf lay fay di jaar ci yow nuyu ñi ñu seetaane ci biir réew mi ak ci bitim réew. Mm-hmm. Euh, di leen euh, sant ci topp bi ñu topp émission bi saa su nekk waaye itam di woote di wane seen cofeel ci li nga xam ne. oustaz Aji mu ngi ko fi euh, jibal ak ganam yi saa su euh, bu ko defee oustaz Aji nga ko waxee rek euh, ñu ngi fi am tey benn borom xam boo xam ne gëstu na waaye bi mu gëstoo itam partagé na li mu xam ak ñeneen ñi waxtaankat la conférencier la la jàngkat la itam ci wàllu gàmm kan muy oustaz Abdoulaye Faye oustaz Abdoulaye Faye di imam fii ci quartier Amdala ci Kër Massar mu ñëw tey nag Oustaz Hady war ñu waxtaanal waxtaan woo xam ne waxtaanu jamono la ndax ñëw na ci waxtoom muy weer wi nga xam ne tàbbi nañ ci ci bismillahi rahmaani rahim muy weeru caabaan mi sës ci weeru koor te tukulóor yi tuddee ko baraxlu xam naa Oustaz Faye dina ci war a mën a ñëw ndax weer la woo xam ne tukulóor yi dañ koy ragal toujours. Hmm. ndax euh, la cay toftalu moo leen dun leex muy koor ga. Euh, bu ko defee oustaz euh, fay di waxtaanee war ñu waxtaanee nag ngëneelu weer woowu nga xam ne mooy weeru Shaaban kon oustaz ginnaaw bi ñu la tatagalee rek comme ni ko oustaz Adi waxee nga ñu bàyyi la rek nga nuyoog mbokk yi waaye itam nga tënkal ñu ci ay baat njëriñu weer wi nga xam ne ñu ngi ci muy weeru Shaaban. baad auzu billahi min ashaytaan rajim bismillahi arrahmani arrahim alhamdulilahi rabbil alamin على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bokki julli ñu ngi sant yàlla julli ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam ñu ngi nuyu ñëpp Cerno Haadi ñu ngi lay nuyu di nuyu imam Hassan Diouf di nuyu mboolem julli fu mu mun a nekk incha allahu rabbi ñu ngi kontaan ci invité bi lool bis bu tedd bi nga xam ne moo tax ñu daje fi war a waxtaane lu tedd muy weeru baraxlu di saabaan mm-hmm. incha allahu ci kanam dinañ ci yem ah foofu sax la dal di sof rek uh, war a waxtaan ak yow ci wàll woowu ndax uh, ni ko oustaz Adi sax di faral di waxee jamono yi dafa am ay jamono yoo xam ne mën nañ leen tudde ay jamonoy promotion yoo xam ne daal niroowul ak yeneen jamono yi loo ca def itam jëf ci dafay gën a ful daf dafay gën a sakkan mu bokk ci loolu weer wi nga xam ne dëgmal nañu koo dugg nañ ci muy weeru Shaaban euh, weeru Shaaban boobu tey boo doon dénk nit ñi pour luñ ci war a def profito ci lan la war a doon. waaw Shaaban liñ dénk nit ñi mooy boo doon tënk ci gàttal moom njàpp la. njàpp moomu nag ban julle lañ koy julleel mooy weeru koor bi ñëw ci kanamam kon weer la woo xam ne liñ ciy jàppe mooy des na ci am ay bonus yu bari ki amee ay bor tey jullit nga amee bor ci weeru koor yu romb weer yu war na laa fàttale ni kat naa fay loola balaa la lee di ñëw ki amewul bori koor war naa waajal ay xeeti jaame yàlla ci lanwoor ay bis ci saabaan ci kem kattanam li ci yonente bi alayhi salaatu wax ci ay njëriñ bare na waaye ci tënk saabaan waajukaay la bu mag duyukaay la bu mag ngir jëm ci weer wu mag wi nga xam ne nag farata la ci suñuy loos ñu dund ko ni ko jullit war a dunde waaw muy lu am solo ndax nit ki jullit bi yaakaar na warul doyal yiw saa su nekk rek bu gisee loo xam ne yiw la war na caa jàdd mu mu gën a feesal gëfakaam euh, bu ko defee ci ci ci loolu am na loo junj sànq ci wàllu nit ki war a fay li nga xam ne faatoon na ko ci boru kooru daaw ñu ci bari dañ koy faral di sàggane ah da ngay gis koo xam ne am na ñetti fan yoo xam ne wooru ko woon daaw ndax dafa feebaroon wala dafa amoon euh, empêchement hmm. wooru ko waaye dangay gis mu koy jàmbat di ko jàmbat di ko jàmbat ba weer wi dugaat fekk fayu ko woon loolu comme que ñu ngi ci jamono war a war a war a war a war a euh, def dànkaafu lan ngay laaye biir ñooñu ak importance wu ñu war a fay bor bi nga xam ne farata ci seen loos ay bés yoo xam ne faatoon na leen ci at mi passé waaw li ma leen ci laabal biir e, yal nañ ci yàlla defal yiw mm-hmm. ngirit lii yëpp daawala la e, fexe yee ki doon nelaw ki doon sàggan nga soññ ko ngir mu gëm boppam ngir gëm boppam mooy gëm la nga ne di ko dund comme diine aywa léegi nag li ñu ko ci laayo biir baada auzu billahi min shaytan rajim bismillahi rahmani rahim daa am lu ne ci kanam mooy wax ak li ci gannaaw li ci gannaaw de waajal la ci kanam suñ borom subhanahu wa taala daf ñuy wax ci alquran ni ya ayuha alladina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaqun foofu taxul may ñëw ba léegi ayaaman maadudaat la fa man kaana minkum maridan aw wala safar fa iddatu min ayaamin uxar yàlla baalewu ko ndeka bor boo amee ci weeru koor sunu borom leen ku feebar ku am ngant am tolof tolof bu tee mënuloo woor ba tax nga dog boo wéree fay ko ngant la bu deñee fay ko balewul waaye dafa leble waaw dafa leble waaye moom nee na ku amee ay ngant loola jéggilu ko danga koy fay te jullit ne ka lay wax ne fayal sa boru nga dund ko yàlla waral ko ci sa kaw loolu le lu lay may équilibre la ci sa ruu waaye luy tabax sa jikkalo jëm fa nga fa nga xam ne sa teraanga fa la jëm ëllëg daa di dundaale boru koor mm-hmm. dootoo nite dootoo am ak dal am na ñoo xam ne dañuy ne ah man nekku duma fi nekk daal di feyanteeg yàlla moom. waaw xam nga texit texit boo xam ne sa bakken moo ko def ci yow nga xam ne ñàkk diine ak ñàkk xam kan mooy rasulullah sallallahu alayhi wasallam ki yàlla yónni di gën ji mbindeef nga xam ne teraanga rek la indil nit la loo xam ne sa santé yow sa wérgu yaram comprimé bi gën ci yow mooy fay sa boru non seulement équilibre bi ngay am ci sa wàllu ruu waaye ak yëg bi ngay yëg nii jooxe nga sa farata waaye jàmm jang say jële aywa kon fay boru koor farata la boo xam ne bii ku koy maasale wala itam nga koy fëlati seytaane mu ngi lekk sa leeru ngëm lay ngëm ci soo dënn noa ba yaa ngi koy ñàkk te yëwoo ko kon yenn ci yàlla musal ku amee boru koor jullit nga yonente bi mooy soroyuwaay gëm nga ko tabaarakallaahu nañu góorgóorlu ñun ñëpp ñu fay ko ak ku mu mën a doon amul kenn ku loo ko mën a gàddul itam nag ndegam am nga kattanu mën ko fay waaw mm-hmm. te boo seetloo sax dañuy faral di wax ne ci beneen domaine dañuy faral di wax ne ñetti weer yi muy rajab ak shaabaan mm-hmm. dañuy faral di wax ne euh, rajab mooy weeru yàlla mm-hmm. euh, shaabaan di weeru yonente bi ramadan di weeru jullit ñi kon mën nañu wax ne kon comme li nga wax ne euh, Shaaban njàpp la ramadan mooy julli waaye itam am na lu ñu seetlu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci biir weeram moomu daana ko def ñu war kooroy muy daana ci woor lu bare bare mu mel ne kuy entraîné wu ci koor pour mën a song bële bu mag bi aywa looloo tax kon nag eh, gën nga maa déggloo li ma wax ni dafa mel ni kuy jàpp di waajal julli eh, caabaan ku ko mun woor lépp sax la ca ne ci yiw ak lii tabax jikko bari waaye ku ko mënul wóor lépp ngir jaamoo ko yàlla aywa ak jëfe sunna yonente bi alayhi salaatu loo ca woor yiw ba bu fekkoon mooy mawduu tey jeex rek waaye mënuñu ko jeexal kon neex na tey ñi yàlla may tawhid ak ragal yàlla ak cofeel ci yonante bi ñu ngi bëgg lool seeni bakken ñu ngi nooyi xet gu neex ngir waajal weeru koor gi di ñëw waaye ak yëg bi ñuy yëg ni boru boru koor newul ci seen jëmm waaye ki koy tegle ba tegle tegle tegle ay bori koor dafay mujj nag ngémam mu ngi xomaat mu ngi sori boroomam mu ngi jël ay bori di ko tegale ci loosam te kat li ñuy wax fale ci wa yajibu qadaa ma fi zimmati mina salawaati waaye mina lan bori koor lan ne ci loosu jullit bi ci ay bori koor loola na yëg ni fay ko def ko war te kit jullit jëfe rek hmm. boo noppee jëfe yaa ngi ci leneen hmm. eh, rawatina ñi nga xam ne dañoo am ngant te ngant yooyu li ci ëpp di dal kii nga xam ne mooy yaay kan mooy yaay mooy jigéen yàlla am ci moom yërmande bu bari ni ko boo wonee lor bu fekkee jël nga ëmb ëmb ba tiit nga ni mënoo dund moom ak koor moo xam la nga ëmb moo xam yow mi ko ëmb te loola wér te ko ci xam-xam bàyyil koor gi bis boo imbeeg jàmm ba dellu ci sa jàmm fayal ki nàmpal kasaaleka moom miy nàmpal ak ka nàmpal walla kenn ci ñoom ñaar yëg na ni kat lii mënu ko wooraale te loolo nekk lu wér tegu ko ca bakkan bu koor jiixee na fay waaw ki la yërëm ba may la loolu nga jël loolu lu bëri di ko tegale te mu wóor la ni nag première guddik bàmmeel bis yu neexa ngi noonu bu neexee rek sa loxo nga ci biir waaye bu naqaree yaa fa yóbbaale ay boru koor yoo xam ne yaa ko tey yóbbaale ay boru julli yaa ko tey yaa dunde woon lu neex sa bakkan te foofu itam waajal ko am na solo fayal say boru koor waajal kër gi nga jëm Mm-hmm. Euh, jërëjëf euh, ba xam naa balaa ñuy ñëwaat ci yow oustaz Adi am na yu mu junj yoo xam ne euh, dina baax nga sof ci ndax yu am solo la ci wàllu weer wi ak ni ñu ko liñ ci war a def. oustaz gannaaw sant la rek. sant suñu gan gu tedd gi di imaam Abdoulaye fay ci waxtaanu am solo mi wax. jubale ko ci weer wu am solo wu màgg wi di Shaaban nga xam ne moom kenn rek ci fukki weer yi ak ñaar moom la ci yonontu bi jël sallallahu alayhi wa sallam moomale ko boppam ne rajab weeru yàlla la Shaaban sama weer la Ramadan weeru sama xeet wi la kon weeru yonent bi weeru tedd la weeru màgg la te weeru yonent bi rek mooy weeru yàlla di weer woo xam ne yonentu bi sallallahu alayhi ci la jotee mbébétam gim doon mbébét lépp moo doon julli di jublu kaabatal musharrafa ca màkka yàlla dogal nag loolu la doon def sax di roy maamam yonentu yàlla ibrahim alayhi salaam ba mu demee nag ba e, gàddaa fekk foofa ci madina ay yahud diine yonentu yàlla Muusa la topp mooy seen ab te xam nga mbooleem yonantu yëpp buñ daan julli baytil muqaddas lañ daan jublu ku dul yonantu yàlla ibrahim yonantu bi nag bi ko yàlla yónnee sama borom ne ko anit tabi millata ibrahima hanifan toppal sa yoonu maam ibrahima moo tax moom tamit bu doon julli muy jublu eh, bay ba maanaam kaabatal musharrafa yàlla dogal nag bi mu ñëwee madinatu munawwara gàddaay si fekk fa ay yahud sama borom digal ko ne ko booy ti del jublu baytul muqaddas pour wan ñii wuuteeg yow ne yow xibla yëpp nga fonk waaye yonantu yëpp tamit nga xormaal waaye am na koo xam ne boo bëggeeg moom bokk ak moom ndabal teraanga da ko koy gën a xeeñ loola waroon leen a xëcc ñu war a ñëw bokk ak moom li mu ne da leen a gën a dàq gën leen a soril ñu ne ah yonantu bii de mu ngi nii barki démb mi ngay jublu màkka tey mi ngay jublu baytil muqaddas bu teyee mu ne weex na boo lëgee mu ne ñuul na kii neexut a topp waaye koo xam ne bu ne weex na yàlla ne tal bu kon bu ne ñuul na rek wala bu ne weex na rek topp ko ca weexaay ba ak ñuulaay ba su ko defee tamit wax yooyu nag bëri ñu koy wax ñaareel ba ñii naan waaw moom de mi ngi nii ne dañ koy yónne ci yoonu te yàlla Ibrahima muy maamam te ngi nii wuuteeg yonentu yàlla ibrahima qibla wax yi nag bi mu soofee yonentu bi jibril ñëw rek mu ne ko ñaanal ma ci sama borom boo demee ne ko mu wutal ma beneen xibla bu wuteeg xibla yahud yi ndax ñoom daal kenn mënta bokk ak ñoom dabal teranga jibril ne ko du laaj yàlla dara yaa ma ko gën a jege yow loo bëgg rek mu defal la ko jibril dem na nak yonent bi commencé na di xool ci jaww ji xar bu tedd ba di ko wëlbati xam ne léegi tey jibril moom nga dégg alquran ne ko qad nara taqalluba wajhika fi samaai fa la nuwalliyannaka qiblatan tardaha léegi nag fa walli wajhaka satara al masjid al haram loolu kon mi ngi xewee xasan ci weeru wu màgg wu tedd wii weer wii tamit bu mosaan na jot di weeru sayduna muhammad da daan soññi mbooleem saxaaba yi ñi ci amoon bor ci koor ta seen ngànta teggeeku ñu jéem a góorgóorlu fay seen bori koor yooya ñi seen ngant nag teggeeku wut yàlla dogal ñu dem a dem ba weeru koor ñëw wàccut leen ba tey ngant la teggeeku wut mi ngi tegu ci ñoom ba tey duñu xoorati waaye dañu bàyyi bu weeru koor bi passé ba seen ngant la teggeeku ñi fay nag bor yañ amee woon daaw fay tamit bor yi ñu amee ren comme nag bi li leen tegoon teggeeku wutoon ci ñoom dafa jokkaloo ba weeru koor bi dellu si dañuy fay rek nag waaye duñ lele su fekkee ne nag ci la teggeeku woon na nga topp sa bakkan topp sa ndeyjoor rek yaa fayul kon bu weeru koor wi ñëwee xooral ànd ak jullit ñi soo demee ba weeru koor yi passé bor bi nga amoon daaw nga fay ko fan bu ne boo ko fayee da nga natt mudd nga joxe ko xam nga ñi nga xam ne tey dañoo amoon ngànt ci ëmb ci weeru koor wu ëmb bi jeex rek ñu dugg ci nàmpal ba ñuy feral ak fekk na weeru koor yi mi ngi ñëwaat xam nga kooku ngànt ga teggeeku wut kon su boobaa ñoom bu loola demee ba ngante la teggeeku dañuy fay rek bu daaw ba te benn muddu koor kon weer wi mosaan a jot yonentu bi sallallahu alayhi wa dafa daan ñaax saaba yi di leen fàttali ne weeru koor wi jege si na fàttali googu nag ka ci ko kon a jege mooy sayyidatuna Aïcha moom dafa ragaloon koor ñaareel bi tamit liggéeyam ci yonentu bi dafa bëri woon moo tax bu amee wan bor ci weeru koor balaa mën a fayati rek weer wi ci lay door di fay muy Shaaban fukki weer yëpp du mën a fay ngir xat-xatam ci liggéey waaye tamit ak ngir ragalam kooram waaye bu demee ba saxbaan ñëw na xam ne fii rek moo fi sës nag mu door a fay bori koor yooyu kon ñi ngi fàttali mbooleem ko amee woon bor ni ko imaam waxee lul gaaw nga fay sa bor ya ndax nag eh, fi ñu la ko lebalee distance bi ak fi ñu nga war a fay sori na eh, digg diggante bi yàlla may na la fukki weer ak benn dox na ki diggante bi ci bor bi foo ko fi mën a fayee rek baax na boo koy fay boo ko toftalee baax na boo ko teqalee tamit ba tey baax na bi nga xam ne moom nga leboon rek nga jéem koo fay moo tax alquran ne man kaana minkum maridan aw ala safari ba tax mu dog fa iddatun min ayamin uxar su boobaa nag kon loolu laa doon wax rek ngir sof ko ci waxtaanu imam Abdoulaye waaye waxta waxtaan wu ama am solo la ñu andil xam naa nag ni ma ko déggee muy wax dafa mel ni sa mbokkoom séeréer la Ah, du ñàkk tuuti nga làkk ko séeréer nag ñu tëjee ko émission bi. yow itam euh, béréb bu nekk ci biir dëkk bi yaa ngi fay def conférence xam na ñàkkul nga dégg ay baatu séeréer. Mhm. ay bu hendi ak mi yilu ak mi yilu di cas. yow doon ak boo message ci. Euh, Morola loo leen di wax. waaw li ma fa doon message mooy jàngal xale yi jàngal xale yi boobu nag làmba na Sénégal yëpp parce que nit day jàng nit foog mu denc réer ak jàng bu mu mën a doon. loolu daal mooy message bi nga xam ne. mais mën nga ko ci mën nga ko wax wax ko ci séeréer ma seet. Eh, mbuka séeréer o meeroon woroxora tigo xam o rek meeri woroxora mina wondonti ow fokri jangi yen jàngaloon koy yen biti yen faa biti yen lax fii ndax ɓoy fo jang yaay woni malaya luufa daate yo manum di bàyyi ma ba bàyyi ma sax wona si jàngaloon koy yen yen koɗwa a jangi minde ɗon yen fof on ni koye yen jangi da jangi dana guin fi jangi dana yogos guin e somi koyeron mi sériron fun e, e walande fun e linuro yemino funda ɓowoɗi wuro yitan pawoto iñamino wuro mm-hmm. oɗam yen habra ɗi barki bappe yen ayyaye yen mm-hmm. a sérigne ka yen bita yen lahoye ken kodolira ɗi sérigne alpha combar jangi data haade tasde a liggeyit koɓe a yonanta Euh, Coré Barak. <laughs> Euh, kon Oustaz Adi. Mm-hmm. comme ni nga ko. waaw allah xam ak yar daal. Mm-hmm. tax ba nit ki. Mm-hmm. war a mën a àgg foo xam ne nar àgg ci laafu xam-xam rek. la mën a àggee foofu. kon euh, Oustaz Adi. ñu dal di ñëw ci ñaareelu xaaju émission bi. muy laaj yi nga xam ne jib na fi. laaj bu jëkk bi kii dafay laaj nee na dafa. doon jullee euh, dañ doon jullee néew ci jamonoy timis am ñu wax ne nañu julli timis ba pare jullee ko am ñu wax ne mën nañ ko jullee avant ñuy julli timis ñoom nag ñuy laaj lan la ñu war a def ci wàll woowu bu fekkente ne néew ba ci jamonoy timis la ñu Oustaz euh, ñaari waxtu chariatul islaamiya dafay tere ku fa julli julli gu ñuy tuddee naafila mooy waxtu wi jant bi di fenk ak waxtu wi jant bi di so ndax booba yéeféer yi dañ ci daan sujjootal jant bi jamono jamuy fenk bu demee ba jant bi sonoon weer wi di féq tamit ñi di ko sujjootal yàlla ne laa tas tasjudoo li shamsi wala lil qamari wasjudoo lillahi alladi xalaqahunna in kuntumu iyaahu taabudun léegi nag dàq googu ñi tere leen ko mu mel ni atte ba dem na waaye illa booba ba tey rek des fi ñu continuer tere ga ci la moo tax imaamu Malik moom dafay jàpp ne lu duhul farata rek naafila la la waaye tur yaay wuute euh, tere jamono ji jant bi fenk ñi fa jullee am néew ak jamono ji jant bi so ba demee ci mu dawoon sul kubra sax dafa ne boo fa jullee néew te denca guñ ko dañoo war a baamuwaat jullee ga kon daal jant baa ngi so timis yi taxaw li gën nañ julli timis muy farata ba pare jant bi fekk mu so bu baax ñu door caa tofal julleeg néew ga waaye xataa buñ jullee woon tàkkusaan ba pare sax mën nañoo jullee néew jant bi soxagut waaye bu demee ba commencé xonq ba ba muy soxee dañuy tere nga di fa jullee néew kon nañ julli timis rek buñ sëlmalee door caa tofal néew ba oustaz Xasan jërëjëf oustaz Hadi kii itam euh, dafay laaj nee na dafa julli tàkkusaan toftal te wirde ba pare fàttaliku ne julliwul tisbaar muy laaj nag ndax buy baamtu tisbaar wa di julliwaat tàkkusaan ba dafay baamtuwaat wirde ba wala déet Oustaz Xasan wirdoow tàkkusaan muy wirdoow ngoon mënta wir lu dul gannaaw julleeg tàkkusaan feeg julleegoo tàkkusaan rek doo mën a wirdoo naka noonu tamit feeg julleegoo suba comme waxtu wi jot na jiitaloo woon doo mën a julli doo mën a wirdo wirdo suba kon li muy tekki ngay nekk jullit piir door a mën a nekk tijaan piir moo tax ñi bañ ko ba wirdo ya nekk ca gannaaw julli ya su boobaa nag tamit da ngay wér ne tàkkusaan moom ci boppam dafa mënta wér lu dul bu nekk ci gannaaw tusubaar ju wér ndax ñoom ñaar wax tey ni mustarika tey ni lañ yow nag kon ngaa julli woon tàkkusaan sonnoo woon a julli tusubaar sa tàkkusaan ji wérul lay tekki demal nga julli ji ca tusubaar ja baamuwaat sa tàkkusaan ji door mën a baamuwaat sa wirdo ndax sa wirdo wi fa nekk ci gannaaw tàkkusaan ju wérut looloo waral kon da nga julli ci tisbaar baamuwaat tàkkusaan baamuwaat wirdo wa oustaz Xasan euh, jërëjëf oustaz euh, Adi kii itam euh, dafay laaj woote na fi sax woote na fi ay yoon di baamtuwaat laaj boobu pour ñu leeral leen ko ci fatwa bi mm. ñoom dañu am benn mbokk boo xam ne dafa demoon géej ànd ak ñeneen ñi ñu am fa jafe-jafe ci biir géej gi nag ba am na daal ñu ñu gis ñoo xam ne ñàkk nañ euh, waaye kooku daal lañu gisul ñuy laaj ndax kooku ñu gisul kooku dafay euh, soxnaam dafay iddaw jàpp ne génn na àdduna wala dafay xaar waaw Xasan euh, suñu xamoon nuñ ko ñàkkee rek danañ mën a wax ne soxna sax mën naa commencé yeddawu ndax boo demee ci fuqaaw yi bu ñuy jàngale mafquud am na xadas yoo xam ne bu amee rek jë euh, jabar ja mën naa commencé jàppal yaddawu notal foofa yaqiin ci rannu day foo xam ne wóolu moo fa not njortu hmm. moo tax lu mel ni tey guerre bu amoon yàlla dogal guerre ba jeex hmm. gisa sa jëkkër ma nga woon ca biir guerre ba te gisoo ko ca biir ñay dundati kon dañuy wax ne bu geer ba jeexee rek demal nga jàpp yedda yow jabar ji jàpp ne sa jëkkër génn na àdduna lu mel ni feebaru pest bu nekkee ci am réew walla ci dëkk ci palaas sa jëkkër nekk fa te foofa kenn mënta génn ci ndax yonent ba santaane ne feebar bu nekkee ci dëkk ku duggutoon bu mu dugg ku duggoon bu mu génnati moom nag mu nekk foofa mënta kenn mënta mënta génn yàlla dogal feebar ba jeex na ñii rappel ñay dund boole wuñ ko ca kooku day tekki ne rek dee na waaye tamit loolu man nga cee yéegalaale accident wu mortel yu mel noona ku duggoon ci jëkkër a dugg ci avion mu daanu ñu ne ah diw ak ñaari nit dañoo ca seen bakkan mucc ñu lim ñooñu sa jëkkër bokkut ci wala mu dugg ci oto oto ba accidenté daanu ña ca nekkoon ñu ne dee nag ñi lim ña ca dund sa jëkkër bokkul ca wala tey mu duggoon ci gaal ba ca biir ndox ma euh, gaal gi jaral bi ku suux ya ca nekkoon ñëpp dee ta sa jëkkër ca la neexoon waaye foofa nag dëgg dëgg dund dafa neex rek ak yaakaar kuy dund neex waaye su boobaa tamit da ngay notal foofa yi hóolu ci njortu ne bokk na ca ñi génn àdduna na nag bi loolu amee ba pare nga toogaat ay fan waxatuma ay fan waaye ay weer di te ñem mu antoona ñëpp dee nañ ca loola kooka moom da ngay jàpp ne rek bokk na ca loola mu commencé jàpp yeddam ci ñeenti weer ak fukki fan ndeem ëmbutoon su fekkoon ne ko ëmb la nag moom bu teqali koog ëmbam ba rek yaddaam jeex na bu gisee jeneen jëkkër mën naa sëy Oustaz Assane mhm. jërëjëf Oustaz Adi ñaar laaj yi nag dañu xaw a niroo ci benn mbir mi la moo tax mën nañu leen boole sax dafay laaj nee na euh, dafa am koo xam ne dafa fase jabaram ci baatu teqale ko firaaq hmm. demal teqalikoog naak yow yu mel noonu hmm. waaye waxul baatu fase bu boobaa ndax fase ma day tàbbi wala déet beneen laaj ba mooy euh, kii dañ ko fase te fekk yëgul ne fase nañu ko moom moom ku jigéen ki bi mu ko yëgee daal fekk yëf yi yàgg na muy laaj ndax idda ba daf koy jàppee ci yëg ci li tàmbalee ca yëg ba wala ca fase ma buñ la fuñ la fase te fekk ne fase nañ la waaye fase mi moom am na te wér na fi nga ko yëgee tekkiwul ne foofa ngay jàppee yadda fa fase ma amee rek foofa la ñu commencé yadda ja su ko defee nag bu demee ba diggante bi jeex ndem ku yeddewu nga ci ay weer bu ñetti weer ya jeexee fi fase ma amee sa yadda jeex na su fekkoon ne sax bi nga koy yëg ñaari fan la set wala benn tombe mu jeex su boobaa tamit jeex na dootoo ko fayati yeddawu ak euh, téen ji ñoo yem ku jëkkëram génnoon àdduna yëgu ko bi mu koy yëg ak fekk na lam waroon a téen jeex na ci ñeenti weer ak fukki fan wala bu fekkoon dafa ëmboon am na doom su boobaa tamit téen jeex na kenn du ko fay nit ki tamit buñ ko fasee te fase ma wér na waaye yëgu ko woon ala kulli bu ko yëgee tamit rek lam dese dong lay mottali su fekkee fekk na mu jeex tamit jeex na waaye fuqaawe tofal nañ ca nag ne su fekkee ne bañ koy fase moom yëgu ko woon euh, fekk bàyyi nañ ko dépense mu continuer da ca lekk loola moom du ko fay ndax jëkkër jaa sàggan nag ca loola waroon koo euh, man mu teel a mënoon xam information ak fa mu continuer woon di ca jë njëriñu ca njëriñal jëkkër ja loola du ca fay dara nag waaye la des ca euh, yedda ja rek moom lay mottali ca contour bi muy commencé ci fi fase mi amee waaye duñ ko tàmbalee ci fi mu ko yëgee Euh, kon bi ci tegu tamit su fekkee ne beneen bi nga waxoon. waaw tulliqa bi lafdil firaq. Euh, Xasan dafa am ay baat yu rot ci alquran rot ci sunna yu ñuy tuddee fase xam ne ku ko wax sa jabar kenn du la laaj loo ca namu yooya baat baatu talaaq am na ca alquran na ko wax at talaaqu marrataani fa imsaakum bi maaruf waaye ñaareel ba tamit baatu tasriix am na ca ku wax sa jabar ne ko bernil naa la kenn du la laaj loo ca namu fase la piir ndax aw tasrihun euh, bi ihsaan maanaam fa imsaaku bi maaruf aw tasrihun bi ihsaan kon baatu tasrih ñëw na ci alquran baatu talaaq tamit ñëw na ci alquran waaye tamit euh, baatu firaax nag sunnaa ko andi am na pa xadis teqalikoog sa jabar moo tax baatu firaax teqalikoo naa ak yow boo ko waxee sa jabar tamit dañ koy jàppee muy fase fase moo xam ne talaaqu sarix la yeneen baat yi ca des yëpp nag kinaaya la kinaaya nag ñaari xaaj la am na kinaaya bu jege am na bu sori kinaaya boo xamee ne nii tey bokk na ca dellul fi nga bàyyee ko demal sa kër baay génnal kër gi jugal fii yooyu yëpp dañ lay laaj loo ca namm soo ne fase laa ca namm ñu la fase bon ma ca fase kat kenn du ko attee muy fase kon lii la fuqaaw yi wax ci wàllu fase dafa am baat yoo xam ne sunnaa ko wax ak alquran baat yooye ku ko xas wax kenn du la laaj loo ca namu mu leer na nañ yi sunna waxut alquran waxut ko am na ci yu jege am na ci yu sori waaye boo ca mën a wax dañu laaj loo ca namu boo ne fase laa ca namu muy fase boo ne namu moo ko ci tamit kenn du ko jàppee fase même sa soxna boo ne ko may ma ndox sax namu ca fase dañ koy àttee muy fase comme ba mu nga ajoo la baat yoo waxat te duwut loola la la nga ca namu lañ koy àtte la nga kenn du ko ca àtte oustaz sax jërëjëf Oustaz Adi ci leeral boobu Oustaz Adi kii itam dafay laaj nee na kii dafa jaay benn xaritam otoom mu dem ba ci biir rek daal mu ne ah jaayatuma sax am ndax loolu dina mën a nekk wala njaay ma tàbbi na jeex na. su fekkee ne njaay mi faso woon na nag du ca mën a génne noona njaay nag dana fasu ci wax rek dana fasu ci jëf rek dana fasu ci wax ak jëf. dana fasu ci wax jaay naa la ko ci fukki junne nangu naa wax ja kay wax ja kon fas na ko jaay naa la oto bi ñaata mu ne deux millions quatre millions juboo ngeen mu ne waawaaw nga yëkkati quatre millions ya jox ko kon fasu na ci wax fasu ci jëf waaye dana fasu tamit ci jëf rek lii ñuy jaay ku ne xam na ne piri bi juróomi dërëm la ki ñuy jaay gerte ya ñuy jaay socc ya nga yëkkati lay la tolloog prix bi rek teg ko fa daal di jël loola yóbbu kooku dafa fasu ci jëf rek waaye yéen ñaar kenn waxut waaye la muy jar xam nga ko moom la muy jar xam nga ko nga ñëw jël la muy jar rek daal di dem bu mu ci ñett yi nag bu ci njaay fasoo yee ba pare xàcc ga du yomba noona waa ja jan waa ja doon jënd rek moo mën a xàcc waaye kay jaay man mënta sangeen damay xàcc dogu ca sariya dab na ko te bu la dabee da ngaa war a taxaw waaye yow moomu timit nag ñu jaay la ki la jaayoon bu réccoo bëgg a xàcc bul dëgëral bari na looy bañ fekk moo gën ci yow te ab jullit pire lu dëgër da ko war a bàyyi xàccal ko rek te yàlla tax yonentu bi nee na ku xàccal njaayam ku réccu bu yowmal qiyaamee yàlla xàccal la say pakastal kon njëriñ la man aqaala bayata naadimi aqaala laahu asratahu yowmal qiyaama kon boo jaayee nit ki mu ne da caa bëgg a génn donte njaay ma fasu na ci wax mbaa ci jëf mbaa ci wax ak génn ca rek ngir dàkk la la ca yàllay defal ëllëg yowmal qiyaama waaye boo dëgëroon ne génnuma ca timit moom mënu ca dara ak fu mën a dem timit yoon wu mën a dem timit loolu rek lañ ko mën a xattee oustaz hmm. jërëjëf oustaz Adi kii itam euh, jaaykat la dañu ko jaay maanaam dafa jënd marchandise marchandise bi nag bi mu ko xoolee ndeke na mu waroon mel melu ko mu ne daal comme que nii lañ ma ko jaayee man noonu rek laa koy jaayee yokkuma ci dara wàññiwuma ci dara mu mel ne daal dañ koo nax mu ne ndax boobu day continuer parce que mënu ko jaay muy laaj euh, ndax loolu dañ koy bindal bakaaru ku wor keneen wala boog euh, ka jëkk kër rek moo ko moo def daal Oustaz Hassan charia du nangu ñi nax la ngay naxewaat kon nax ya du am àpp buñ la naxee nga naxewaat kañ nax naxewaat fan lay nax ya di yem day sori ba ëpp hmm. waaye jàppal ne yow mi ñu njëkkoon a jaay daal max buun nga kon nag dañ laa nax ci njaay Euh, su fekkee nax ga dafa demee ci ñaara mën a am am na ayib bu nekk ci njaay mi te waaje waxut la ko woon te yow xamee woo ko woon noonu sariya may na la nga xàcc ndax moom mooma nag am na bàkkaar ci li def kuy jaay da ngaa war a wax la ca nekk ci ayib doonte boo ko waxee waaja lam ca mënoon du ko mënati waxal wala soo ko waxee waaja dootu ca mënati dara waxal waaye ku nëbbu ayib ci njaay bu yowmal xiyaamee da nga réccu la nga doon jaay su fekkee nag jaay na la ba pare ala kulli haal euh, benn ayib nekku ci mais lim la ko jaayee moo seer nga dem fenn ñu ne loo jëndee lii nga ne ñu ne la 10 000 dañ laa nax kii 8000 rek mbaa 7000 mbaa 5000 war nga ko cee mën a am asu ah, boobaa sañoo xàcc nag yow lañ nax rek jeex na waaye lañ la jaay amul benn ayib su boobaa tamit nag waroo dëgg ci ku mu ci ñaar yi bu mu ci mën a doon nga ne dañ maa nax naa naxeewaat su boobaa bu li nga wax ki nga ko jaay bu waxee loola keneen wax ko fan lay nax yi yeme kon loolu charia du ko nangu oustaz Xasan hmm. jërëjëf oustaz euh, Adi kii itam euh, dafay laaj nee na dafa teqali kook euh, jabaram ñoom ñuy xëccoo doom yi nag jabar ji ne mooy yore doom yi jëkkër ji ne moo leen di yore loolu nan la ko lislaam atte li lislaam di atte rek mooy jëkkër ji li muy xëccoo moomu ko góor ak jigéen bu ñuy say say ba jeex yàlla def ci ak njaboot bu ndaw buy ci masabu imaamu Malik jigéen nga mooy yore doom yu jigéen ña feeg ba ñuy matee am jëkkër suñ demee bay am jëkkër nag bàyyi jaay seet ka ko neex mu may ko ko mooy joxe ndigal ca maye ga xut ba ne may naa wala kum jox ndigal ne ko mayal ma ya sañta maye moom mënta maye boppam sa bay maye keneen loolu mooy masabu Malik suñu doom yu jig góor ya nag seen yaay moo leen yore feek ba ñuy mësooree waaye buñ tolloo ci jàng nag seen bàyyee tànn la ko neex lu ñu war a jàng ba ñuy jàngee tamit seen bàyyee koy tànn ku mu ci ñaar ñii tamit nag seen dund ak seen koddaay ak seen faj yëpp bàyyi jaa koy gàtt waaye yaay ja moom moom mooy nekk kay yore su yaay xatee nekk ci sëyab jàmbur wala fa mu nekk amul sécurité ba war a mën a yore njaboot yaay yaay lañ koy jox muy maam kon loola balaa bàyyee ñëw daanaka bàyyi moom fa muy taxaw dana mat juróom benn li place wala juróom kon moom la muy xëccoo sori na ca lool mm-hmm. lii la ci sharia wax ci mazhabu Malik bu Abu Hanifa nag moo gën a yombale moo gën a woyof moom dafa ne buy jigée buy góor ña yaay ja moo leen yore ba ñuy amee juróom benn at jëm juróom ñaar fu ñuy war a duggee école su boobaa nag mu jox delloo ko baay baay jël nag fu ko neex mu dugal continuer seen ak yoon amaa nag ca wàllu doomu jigéen ña ah, Abu Hanifa ak imaamu Malik ñoo ca tëppoo mu dalee ni yore rek fekk ba ñuy mate may jëkkër waaye buy góor ga nag imaamu Saafi imaamu Abu Hanifa moom ma nga yem ci juróom-benni at jëm juróom-ñaari at Malik nag moom mi ngi ko tënk mu dem a dem ba ci fa muy mësuure kon bàyyi la muy xëccoo moomu ko Oustaz Xasan soxna soo sax mu koy xëccoo moo ko moom soko ko mënut ñu jox ko maamam ja muy yaay yaay Oustaz Assane mhm. jërëjëf Oustaz Adi kii itam dafay laaj nee na chauffeur la buy euh, def euh, maanaam chauffeur la buy yóbbu ay nit di leen euh, delloosi ci biir otoom nag dafa fekk benn saak boo xam ne xamul kan moo ko moom saak ba yàgg fa muy laaj nan la war a def xasan na ko jébaane rek yëgle léegi tabaarakallaahu rajo yu bëri na télévision yi bëri na mu wane rek ne am na benn client bu bàyyi woon ay bagage ci sama oto client bi maa ngi ko jëlee woon place sangam maa ngi ko wàccee place sangam oto bi fii la doon bàyyeekoo ci waxtu nangam jëm place sangam maa ngi ñaan képp ku dégg yëgle boobu man ko cee woote mu ñëw jël ci ay bagaasam bu jëlee loola di ko yëgle su fekkee marchandise mu gaawu te la lu mat at feeñu déggul ca dara sharia may na ko ñaar may na ko moom mu jariñoo ko bis bu borom feeñee mu garante ne ko maa koy fay liila woon may na ko timit mu saraxe ko yéene boromam yool ba bis bu boromam feeñee mu ne ko ah la ma doon yëgle kat denc naa ko ren ba déwén gisuma kenn saraxe naa ko wal naa la yool ba waaje ne ko man gawuma yool lii la tolloon mu yëkkati ko fay ko ko féetewoo yool ba ndax moom yàlla du sànq jëfi kuy rafetal su fekkee ne ne ko saraxe woon naa ko yéene la yool ba mu ne mu ngoog loolu moo gënal kon kenn ku nekk dem euh, su ko defee dellu ci euh, ke dese dese yoolam ba ci yàlla kii tamit am yool bi nga xam ne loolu la ko ci defal noona kon loolu la ca charia wax Oustaz Assane Mm, jërëjëf oustaz eh, Adi eh, waxtu waa ngi dab waaye ñu tëjee ak laaj bi kii dafay laaj ne léeg mu seetlu ci jotaay yi ñuy wàccee kaamil ñu jàng ba am benn portable bu sonné nit ki dal di arrêté njàng ma di wuyu téléphone muy laaj ndax loolu mën na ànd ak njàngum alxuraan ba wala di xasan mënuñoo ànd kuy jàng dafa mel ni kuy diyaaleeg yàlla te alxuraan mooy li gën a tedd ci lu ñuy wax mooy li gën a màgg ci lu ñuy jaamoo yàlla ci wax ku koy wax yaa ngi wax wax yàlla ku koy wax yaa ngi wax ak yàlla kuy wax ak yàlla nag waroo koo dagg di wax ak mbindéef te alquran boo koy jàng bëgg caa jariñu dafa war a ànd ak yar ànd ak teggiin ànd ak dal soo koy jàpp soo koy jàng boo ko manee àndal ak njàpp soo yoree kaamil nag da ngaa war a yore njàpp ndax laa yamassuhu illal mutahharuun comme kaamil la mat na sëkk yéen ñëpp ca xem nag comme mat na kaamil kiy jàng ak kiy jàngaleeg ca xem su fekkee ku manqué na nag te yow da ngay jàng mbaa ngay jàngale man nga koo yore ci lu dul njàpp waaye boo yoree njàpp mu gën a baaxati soo ko mënee na nga toog toog bu ànd ak lul xibla soo ko mënee del def tadabbur di settantal aaya ju ne nga taxaw ca settantal aaya ji ndax kat saxaaba yi yonantu bi yaroon ñu daan jàng su ñu yeggee ci aaya joo xam ne dafay tëkku ñu taxaw settantal ko muslu yàlla ca tëkkuma ma buy aaya joo xam ne dafay dëhal ñu setantal ko ñaan yàlla dëhal yooya yàlla defal leen ko suy aaya juy xuppe ñi tiit buy aaya juy bég la bég buy aaya juy waaraate ñi waaru buy aaya juy xissa tamit ñi xéemu yow nag bu fekkee yaa ngay jàng fu téléphone bi sonee nga wuyu ànd ak di waxtaan di dem ak a ñëw su boobaa tabaarakallaahu settantal googu ñuy jëlee ci leer ak alquran doo ko ca mën a jële te jamono ji nag jokkoo yi dafa yomb lool dugal tuuti rek ab ligne yendoo di wax rek te ñuy wax ñëpp ku leen bëgg a wuyu dana mel ni ku yara tool mbott yi di sab ta mag ñi dañuy wax ne ku nekk ci tool mbott mu sab nga tàcc ko sa tool ba dana booy waaye kuy jàngal Alquran tamit nekk ca ku woote nga wuyu ko soo moytuwul tamit doo jëlee dara ci caf nga ak Alquran doo jëlee dara tamit ci leer ak Alquran dañ ko war a ànd ànd ak dal ànd ak wegeel ànd ak tamit xormaal wax ji ak xormaal borom wax ji Oustaz Assane. Mm-hmm. jërëjëf Oustaz Adi xanaa ñu sant la itam waaye sant suñu gan gi di Oustaz Abdoulaye fay malgré que fay la sant waaye indi na fi xam-xam boo xam ne beneen euh, sant la. Euh, ñu ko ci sant bu baax a baax di ko gërëm di la gërëm Oustaz Hady kon ñu bàyyi la nga tëj. Euh, waaw Oustaz Assane li nga wax rek ñu ngi lay sant di sant imam Abdoulaye fay ñaan yàlla fay ko. Mm. Euh, ci yiwu bi nga xam ne tamit indil nañu ko di ñaan ñi nga xam ne ñoo doon topp waxtaan fu mu nekk ci àdduna bi. di ci leer lépp yàlla rek la lu ci leera di gàtt xam-xam ak ñàkk fasaax la in uridu ilal islaaha mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu li uni wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu الحياة برنامج أسبوعي العالم العلامة fatwa di émission bu leen rajo télévision Walfajri di defal ay bés bu jot ci waxtu wi ak oustaz Hady